ñiy ceytu wàllu wér-gu-yaram maanaam aji docteur fii ci centre de santé bu géngi Guinguinéo amaloon benn atelier jëm ci ceytu ak waxtaane li nga xam ni moo jëm ci wàllum vaccination de routine HPV ak Covid-19 ci département de Guinguinéo ndaje bi nag aji docteur àndoon nañu ci ak mboolem couches yi nekk ci département bu Guinguinéo ñu déglu ci docteur ñu ay leeral lu waral ndaje bi. lu waral ndaje bi mooy dañ dajale woon les parties prenantes yi nga xamante ni ñoo nekk dans la zone euh, ci parties prenantes yooyu ci tudd les imams les comme les autorités administratives les autorités territoriales mooy les maires mais également waa forum civil waa jeunesse euh, Croix-Rouge mais également ñi nga xamante ni ñoo yor daara surtout école franc kii comme adresse franco arabe euh, ak ñi nga xamante ni donc mooy imam yi donc bref daal mooy ñi nga xamante ni vraiment couche yëpp ak les codec ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci département bi ak l'IEF pour que ñu xool naka la ñu def pour relancer donc la vaccination euh, de routine mais plus particulièrement la vaccination HPV ak aussi Covid 19 parce que ku ne umpalewul ne euh, depuis 2019 bi Covid ñëw ba léegi donc système de santé bi quand même surtout la vaccination dafa commencé di sooxe ci donc lu mel noonu nag su amee baax na ñu relancer ko ñi nga xamante yëpp war nañ ci dugal seen loxo donc ñu lëgale leen waxtaan ak ñoom xamal leen fi nga xamante fofu la ni di sooxee su ko defee donc ku nek su libee mu jëm jël ay stratégies yoo xamante ni dana ko def ak waa kër docteur pour que ñu xol naka la ñuy. Euh, renverser donc les les tendances renverser tendances yi mooy yan couverture nga xamante ni euh, moom lañ daan faral di am avant Covid 19 donc euh, bi Covid 19 ñëwee gis nañ dafa wàcc léegi nag fu ñu tolloon avant Covid foofu lañ bëgg a nekkaat wala fu ko raw donc loolu daal vraiment moo doon li nga xamante ni mooy solo si bis ci biir ndaje bi nag amoon na ay laaj ak tontu jógee ci ñi nga xam ne rek ñoo teewoon ci atelier boobu jëm ci aji ñeel docteur yi. waaye ñu déglu ba tey rek docteur Badiane ba xam am nañ liñ doon xaar ci ndaje bi ak waxtaan wu am solo wi. foofu également am nañ satisfaction parce que imaam yi ñëw nañ si nañ véritablement euh, codec yi également ñëw nañ IEF ñëw na pratiquement ñëpp ñi nga xamante ni daal convié nañ ci activité bi am nañ ci ay représentants euh, ci biir également présentation bi ak aussi après présentation bi discussion yëpp ki jël kàddu ku ne donc yaa ngi wax daal dans le cadre d'améliorer

day demande ay moyens mais également day demande ay euh, ressources humaines day demande aussi logistique mais également xaalis donc fa programme la boo xamante ni li muy demande day bëri ay moyens ressources financières humaines mais également matériel loolu yëpp aussi day bëri bëgg également collaboration ak engagement communautaire yooyu yëpp ñu koy soxla euh, pour que ñu mën a maintenir donc les couvertures parce que chaque année euh, bu année bu bu année bu bu bees ñëwee da ngay def contour bi à commencé at léegi boo bëgg am couverture yi ëpp nga amoon daaw faaw nga def effort yoo xamante ni moo ëpp nga defoon daaw pour nga yegg ci couverture yi nga amoon daaw léegi soo bëggee nag ko dépassé donc faaw nga def nga defoon daaw pour nga am couverture yoo xamante ni moo dépassé li nga amoon daaw donc c'était le recommencement donc tey nag Sénégal dafa nekk ci science boo xamante ni euh, gis na bëgg na vraiment ci comme pays africain yëpp ñu koy joxe mooy fexe ba maintenir ses performances donc chaque année dem ba waxatuñ sax ay couverture de téeméer boo jël nga am juróom-ñeent fukk au moins mais war nañ mën a am quand même dem ba xool naka la ñuy def pour trouver le dernier enfant dernier enfant bi nag du lu la parce que mooy ngay euh, mobiliser pour vacciner au moins téeméer boo jël juróom-ñeent mën na am lu toll noonu moom ngay mobiliser pour mën a atteindre le dernier enfant ci tant que amaguñ atteindre nañ le dernier enfant donc euh, ba léegi on est quand même exposé à des épidémies wala aussi à des des menaces sanitaires ci loolu également gis nañ ko Covid wane na ko te boo xoolee également situation bi ni ñu doxee ni diggante daaw ak ren ñu commencé di gis ay cas de rougeole dans beaucoup de districts loolu day firndeel ne am na xale yu bëri yoo xamante ni ñu rëcc te bu defee analyse bi euh, surtout par ak euh, nombre de personnes yi nga xamante ne ñoo am rougeole bi suñ xoolee daanaka ñu ci gën a bëri euh, xale yoo xamante ni dañoo rëcc ci vaccination soit jëluñ première dose wala jëluñ deuxième dose. wala boog jëlul benn ci vaccin yooyu loolu mooy firndeel euh, les personnes les les enfants susceptibles de développer la rougeole vie, parce que des bi de vie. chaque année muy accumulé su fekké né couverture couvertures faible euh, d'année en année loolu également suñ également des campagnes de rattrapage wala donc des campagnes de suivi pour essayer quand même de réduire les susceptibles aussi, aussi les euh, exposer pour lui développer donc des épidémies encore une fois dal bu fekké routine bi dox na carrément

nous permettre quand même ñu euh, ñu mën a atteindre donc le dernier enfant. gannaaw loolu nag aji docteur fas yéene jël ay mesures ngir lawal li nga xam ne rek moo di campagne vaccination bi ngir waajur yi mën a bàyyi seen njaboot ñu mën a vacciné wu ñu déglu ba tey rek docteur Badiane yan mesures la ñu war mën a jël ngir sensibiliser population bi. waaw loolu également dina jafe benn mesure rek la ñu mën am pour l'instant mooy continuer di sensibiliser. mais également vous même les personnes influentes telles que les influenceurs wala les autorités parce que dëkk boo dem peut-être dina am koo xamante ni leader la influenceur la wala ku am baat ku am cadre donc si vous avez jafe yi li ñu mën def pour l'instant mooy sensibiliser bu fekkee ne ñun mënuñ ci dara ñuy jéem a euh, solliciter ñi nga xamante ni am nañ baat nekk ci localité bi ñu jàppale ñu ci sensibilisation ba nga xamante ni euh, genre cas yooyu mën leen vraiment di leen euh, sensibiliser bañ accepter donc pour ñu jéem vacciner seen xale mais pour l'instant amagul benn loi euh, boo xamante ni dinañu permettre quand même ñu jël ay sanctions par rapport à des mères gardiens d'enfants wala à des parents yoo xam ne réticents par rapport à la vaccination wala boog ñoo xamante ni aussi euh, fulaluñ vaccination peut-être maintenant au niveau de la zone vaccination de routine bi donc pour nga gis si réticence dana jafe li ci am rek mooy euh, négligence bi des fois gars yi parents yi duñ xam njëriñu vaccination ak njëriñu le respect du calendrier vaccinal loolu aussi mooy dem ba finalement day tax ni am ay retards yi au niveau donc de certaines localités loolu daal vraiment mooy loo xamante ni suñ ci euh, ànd ñun ñëpp wala suñ doole euh, dinañu permettre quand même euh, ñu mën a jot ci xale yi nga xamante seen parents yi dafa négligé dañoo négligent ba nga xamante ni duñ toppatoo seen duñ respecter le plan vaccinal wala boog duñ dañuy commencé mais duñ yegg li wala xale yoo xamante ni balaa ñu commencé également danañ comme danañ âgé loolu yëpp ay ay défi yoo xamante ni mu suñ kanam mais je pense que rencontre bi tey buñ ci génnee. donc ku nekk jàpp ci ci li fi nga war a jàppee donc li mën a gën a sensibiliser nit ñi pour que ñu changer comportement ca comportement bi ñu gën a bëgg rek mooy ñu parents yi xam ne vaccination bi euh, seen devoir mooy ñu fexe seen doom yi ñàkku euh, xale yi aussi ñu xamal ne xam xale yi aussi seen droit mooy ñu jël seen ñàkk yi ni ñu ko war a jëlee avant ñuy fêter seen deuxième anniversaire war nañ jël la totalité donc des vaccins bu ñu jëm ci xale yi nga xam ne aussi dañu am 9 ans ba jëm 14 ans aussi il faut que parents yi xam ne bépp xale boo xamante ni am na 9 ans war nañ ko enrôler mu jël première dose am bu amee 6 mois également tullam deuxième dose bi donc loolu aussi c'est des cortes yoo xamante day renouveler chaque mois parce que ki am 8 ans 8 mois mois bi ak quelques mois donc d'ici 3 4 mois war na mën a am 9 ans ñu dugalaat ko mu enrôler ko su amee 6 mois également mu génn loolu daal suñ ko xamee ñun ñëpp noonu euh, permettre quand même ñu améliorer couverture mais également jëm fi jëlee feebar parce que c'est des maladies yoo xamante dans la plupart euh, qui sont évitables par la vaccination donc euh, dernier mot bi y a euh, également une ngi leen di par rapport que seen taxawaay parce que également tey li nga xamante moom mooy vaccination bi les réseaux sociaux parce que nous, avec l'avènement des réseaux sociaux nous nga xëy reer ba suur dugal ci réseau yi loo xamante du début. mais ñun également liñ gis ci réseau dañu yaakaar ne dëgg la or que lépp lu partagé nekku euh, am na ay information yoo xamante yu am source la donc yéen seen loolu ñu ciy xaar mooy ñu ñu dimbale di bloquer yenn euh, information yi nga xamante c'est des rumeurs wala c'est des fausses informations wala des désinformations mais également bu ñu euh, il faut ñu xool naka la ñu utiliser benn communication en ligne bu nga xamante ni dañ teel a joxe bon message su ko defee message bu baax bi njëkk ci communauté bi loolu dina leen permettre quand même même su keneen dugalee message boo xamante ni c'est contraire à la réalité le fait que nous avons déjà donc, la bonne information. Donc, il faut qu'on utilise toutes les stratégies, toutes les moyens de communication, surtout par rapport à euh, la presse en ligne, pour que nous euh, nous éviter donc, les rumeurs, mais également les désinformations.